naat tudd na iram tudd na samut ah tudd ñëpp ba tudd firawna wa firawna dil awtaad alladina taxaw fi lbilad te ci biir jamono képp ku réaliser lu jaaxal nit ñi wala projet bu gigantesque ñu ni c'est un projet pharaonique di wane ni dañ koy tollale la firaaw na defoon et pourtant ñooñu yëpp ak lañu def yëpp yàlla nee dinaa leen caw sawta adab ndax inna rabbaka la bil mirsad waaw yàlla nee na matim ndax bu fekkee da tabax dëkk yëpp te yépp nga toroxal leen yàlla nee na nga am affaire ak man waaw waaw ba tax na kon nag ba defee kenn ku nekk nag yor sa laara sa kaala waaw ku ne di téelale li téelale li nangam parce que dig nañ la rek dinañ la sarax nangam daf ko jar daf ko jar waaw e nee nañu président nee na nañu sarax juróom-ñaari milliards juróom-ñaari milliards yi dañoo xam fu mu jóge ñi ko fi indi lan moo taxoon ñu indi ko fi problème mu Sénélec bi ñu am courant yu coupé un peu partout ak li ñuy fayloo nit ñi kenn xamul nu mu toll ak route yi inondé un peu partout nit ñi amuñu fu ñu jaar oto yi amuñu fu ñu jaar waaw yooyu yëpp foofu la gënoon jekk foofu la gënoon jekk waaw foofu la gënoon jekk waaye dem ci borom tañlaa yi rekk kenn ku ne dayee la ay nangukatu àddiyaam ñuy lay wax di la tiwaawan nag moom dangay ngay defe ni nga xew waaw ñi ci des sax correct nañu Njaasaan correct nañu Ceneba correct nañu hmm? un peu partout ci Tuuba it sunu maam bu baax ba wax na lam koy wax et c'est très très clair waaw ni ko bu fekkee ni def nga fi lu nekkit ma di la yëgal ni élection mosu fee am ba nga gàñe fi loolu li mu firi lan la ce qui veut dire que mën na ni parce que dama gis sànq ministre de l'intérieur di ko wax nan dafa dem Arabie Saoudite gis fa benn genre musée boo xam ni musée islamique la la fa nekk yéeme mu demander roi bi pour ñu defal ko musée bu mel noonu ci Sénégal ndax mais Sénégal am na leneen lu mu tal lu dul musée hmm? yonent bi li ñuy dunde ci moom duñ ko jaar ci musée ndax li xew nii yonent bi bi ko Maodo di sonne sëriñ Touba di ko sonne mais boobu ñoom xamuñu woon luy musée seen yitte rek ak seen taxawaay lañu def ba nit ñi yegg fi ñu yegg tey waaw ba tax na kon nag bu ñu bëggee nax nit ñi di ko jaar fii ak wax yu kenn xamul doxul doxul moo tax jël naa ay disposition euh, fontu baaxul parce que loolu Mimi Mimi Touré wax wax ni bu ñu accepter candidature Amadou Ba booy boo ñu jàpp ni accepté nañu troisième mandat bu Macky la elle a parfaitement raison elle a parfaitement raison ba tax na kon nag duggaguma woon ci biir yëf yi mais bay boo ngeen pare waaw waaw parce que fortu baaxul on en a assez waaw pare leen ndaw sëriñ si fii yëpp lu ñu jàng-jàng naa ko waaw te ëpp ñu may taalibe nag bu ko defee kon nag bu subaa dinaa leen wax ñun fi ñu jëm sur le plan politique ak nan la ñuy pare sunu élection ak nag nan lañuy ñafante ma wax leen ko ngeen baal ma du ñàkk teggin du dara waa du ñàkk teggin du dara dafay am koo xam ne bu yeggee fenn fi waxal ak moom ci dimension bi nga mën a waxee ak moom waaw ndax loolu rek la mën dégg waaw bu ko defee kon nag nañu organiser wu